te bañ koo booleeg dara te xam ne ci la sariñ suñ bopp nekk tey nekk ci la suñ njëriñul ëllëg nekk lu mooy jàpp Sëriñ Tuubaa jàpp Sëriñ Tuubaa ko gën ci nun nan jàpp Sëriñ Tuubaa bu wér rek bu ñu ko defee rek bi laa darin damay njëriñ lu àndut ak lor képp moo tax ñëpp jublu la ñuy wut bu baax a baax a baax te fonk ko te teg ko fa mu tegoon yonente bi wala fu ko gën a kawe lam waxoon ni laxoo daxara niyaati wa xilmi wa xidmati wa ruuhi wa jusmaani wa kulli bila sukli jox naa la sama yéene jox naa la sama xam-xam jox naa la sama liggéey jox naa la sama groupe jox naa la sama yaram te dootuma ci xëccoog yow dara nan def noonu Sëñ Tuubaa dégam bëgg na dara ci moom loolu moo nuy may dara kat waaw Sëñ de dees koy jàpp téye ko bu wér wér mooy tax a am ci moom dara moom nag mbiram lu leer nañ la moom sëriñ bi ndax damay faral di wax ni ëllëg yowmal xiyaam bu mbindeef yépp teewee ci kanam ak suñu borom mennam seexul xaddiim rek moo mën a yëkkati loxoom ni yàlla maa ngi nii maay sero fot ku dul suñ tubaab la fuuyee fekk ci yow ay fot fot ak koo man di doon ak foo man di dëkk ak loo man di cosaanoo buñ la seetee fekk ci yow ab gàkk soof sëñ tuba amul gàkk sero fot mooy sëñ tuba digganteem ak yàlla leer na naññi digganteem ak yonente bi leer na naññi digganteem ak julli leer na naññi suñu digganteeg moom leer lu ci des ci ñun ñii la loolu rek laa bëgg lay digganteem ak yàlla digganteem ak yonente bi ak suñ digganteeg moom loolu rek laay reeral muy benn thème ma joxe rajo bi ndax tey waxtaanu digganteem ak yàlla mooy Sëñ Tuubaa dafa wax ni dama ni bërit wuti yàlla yàlla di ma taxawal nee na ma ni bëriwaat bëri yàlla di ma taxawal nee na ma ni bëri yàlla di ma taxawal nee na ma ni tekk yàlla joxañ ma Moustapha bi mënoo fexe ba egsi ci man te jaaroo ci moom Moustapha mais mënoo fexe ba egsi su la indee nag loo bëgg danaa ko def waaye moom fokk moo lay indi fekk nag ca asal Sëñ Tuubaa xamoon ndax ci asal ba yàlla bindee ruuy te bindagul jëmm yi di leen wax alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom tànn ci genn ruu muy ruu yonente bi ba mu xamee suñ tubaa xamee ne yonente bi mooy ngeen jëmmi def ci la waxee suñ yonente bi ni ko yii maa la ko warlul yii waxuma xasida yi ba wax yonente bi ni ko yii moom maa la ko war man suñ maa la ko warlul sama diggante ak yow dal ni yonente bi lépp lu ko naratee dal na ma dal lu nar a tuur ci deret naa ko tuur ci deret dammi fidaa un li xuróoji dammihi wa maradi fidaa u daa i jismihi daal wax ne yonente bi bu naree àddina dem àddina ay dig di ko jam wala jiit di ko fett day metti kon nan jël sama lex bi teg ko ci ndëggul tànkam lu ko naree tey fett maa nar koo jam yam ci man xat di wiqaayatin li rajjil mujtaba min sawkatin wa yudaha aqraba kon bu ñu ko ko joxañee ñëw gi dana yomb waaye ci ay teggin Sëñ Tuubaa nee na ma dem fekk Moustapha di ko seet da gis ko fekk ko fa mu tëdd Sëñ Tuubaa siñante siñanteeg moom contrat boo xam ne kenn mësu koo signé muy salaatu sitta bi mat i sitta taati ibata ma ët da koo njëkk ni ko antal karimu annal xadimu daxran uddimu mu ka samaay mu ne ko nooy liggéeyee mu ni ko salaatu sitta bi mat i sitta taati ibata ma ët saay juróom benn weer tagg juróom benn weer daal di yor yi juróom benn weer yu ne mu def ci xasida yi tagg juróom benn weer mu def ci xasida yi ñaan muy tagg ak liggéey di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba yonente bi di dégg loo xam ne kenn mësu ko koo wax damay di wax ni waxuma la xasida yépp waaye buntu muxaddimaa nag nuun nuun nga rek boo ko tegoon ci kaw taabal ji jël li gaa yi wax lépp la suñ euh, xëy am satu jaxate waxoon ni uhu akmalul wara bu ñu ko tegoon jël ba nuun gaa yëpp uhu akmalul wara wat leen waxut buy eggale xasida gi waaye dama yaakaar ni ku jëloon nabiyun rasulun xayru habdin wa sayidun xaliilun xabiibun misluhu laysa yuxlinu najiyun xariibun shaakirun wa huwa shaakirun jawaadun kariimun bilmakaarimi yuxsinu naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun basiirun liman ilaahi bilaaq yutinu teg ko ci kaw taal suñu ko wat gaay foofu yi la jaar di jaar foofu di tagg yonente ba ba ci yonente bi yonente bi ne ko yow mii doon royal taman mii damay jeexal waaye kaay mu yóbbu la ci yàlla mi dul jeexal ñu diggante ba ca suñu borom yonente bi ne suñu borom li ma yemoon lépp jox naa ko ko te moom jeexal la doole la gu taman jeexal naa suñ borom daal di gis yonente bi mu taxaw moom la suñu tubaab bind ni talabtu min mukarrimin mukarrama kawnahuma lakum wa kawni lahuma yàlla moo may sàkkul ci yonente bi tiraa nga tax yàllaa ngi toog yonente baa ngi toog maa ngi toog boobu jotaay suñu tubaab ko ma sa am yonente bi di ko sàkkul suñu boroom di ko jox di ko jox di ko jox bala nekkoon foofa jeex yàlla ni ñokke ni bi loo dese mu ni ko mbubb mi yoo sol muy mantu bi mu ni ko jox ko ahmadu mii su yonente bi summi mantu bi jox Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa sol ko Sëriñ Tuubaa téye ko jox ko Seex Moodu Mustafaa Karim yàlla ni ñokkee yonente a a yéege yonente bi yonente bi toog ci toogub suñu borom suñu borom jàll feeñeen fu ko soob suñu borom fekk ko foofee ni ko duhaa istajib bi xayri lan biya walan biya walawliya ya rabbiya dahaaka day fi ko la si xat ja ada la si xat ahada loolu nag kenn mësu ko am ko mooy Sëriñ Tuubaa kon loolu mooy digganteem ak yàlla ak digganteem ak yonente muy serofot suñ digganteeg moom damay faral di wax ni nun ñii ñëpp kenn ci nun defut lu tax nga war di murit amut du yow du man du sama morom ku def loo xam da ngaa def lu war tax nga di murit amut Sëñ Tuubaa la soob rek mu tànn nu may nu garaata murit garaata murit nag moo gën lu dul moom ku jébbalu ku ne yaa gën ka jébbaluwut loolu la yàlla dogal ku jébbalu ku ne yaa gën ka jébbaluwut ak ka jébbaluwut lu man di def yow mi jébbalu yaa ko gën moom ndax jébbalu nga nga jébbalu nga ko gëne suñu tubaab dafa wax ni talabtu min mukarrimin mukarrama kawnahuma lakum wa kawni lahuma da dafa wax ni yàlla moo ma moo ma moo moo ma moo ma terale ak yëkkatiku rek mu yóbbaale leen ak ramani bi rafihi maha jammi maxtaara li lahu wa innahu sami kon kooku mooy sëñ suñ digganteek moom lim nu may muy garaatu murit kon nan xam ni noo am lu kenn amut mooy li may faral di wax ni li yàlla bind doomu aadama ci gën li doomu aadama yi bari bari jullit yi ci gën li jullit yi bari bari murit yi ci gën li murit yi bari bari nag bàyyi faal yi ci gën li mooy dogalub saa borom kon nun noo am li gën nañ ko téye bu baax a baax muy sëñ Tuubaa kenn amu ko ku may noonu nun képp noo ko am ku jébbalu ci nga bokk ku jébbalul koo man di doon ci loolu yàlla dogal donte ñëpp la yéene jàmm ndax irham jami xal wala kenn génnu ci waaye nun nu jébbalu nag noonu am nan xaas ci foofu loolu ma leen di wax am na ci loo xam ne toog naa sëñ Mor Mbaye si wax ko sëñ Mor Mbaye si daa am ku dikk nuyu ko sëñ Mor Mbaye si ni ko xanaa Baay Faal nga mu ni ko waaw sëñ Mor ni ko mu ne sëñ Mor lu tax nga wax ma ab Baay Faal la sëñ Mor ni ko malaaka miy bind bàkkaar laa gis ci sa mbagg yi keroog la sëñ Mor Mbaye si wax ni Faal ku sa këruk àjjana noppeegul mënoo koo doon kon ku dul Baay Faal da ngay wut ba xam da nga amam doo am Baay Faal nag ku sa këruk àjjana noppee rek yaa ko mën a doon kon loolu rek laa doon yeete muy waxtu wi xam ne jàngkati xasida yi bari nan tey waxtaanu ma waaye bis bi dama cee mënta ñàkk bañ a ñëw li tax mënuma cee ñàkk bañ mooy daa bokk ci bis yi daa bokk ci ñaar yoon yi ma fi dikk yëpp dama fi yëg sëñ Tuubaa te fii saa yu ma fi duggee yëg sëñ Tuubaa moo ma andi ci bis bi saa yu ma fi dikkee danaa fi yëg sëñ Tuubaa ba yëg ne yëg naa ko wallaahi laasim barke xasida yi sëñ Tuubaa kon loolu rek moo ma yëkkati waaye ku ne xam na ni ngénteel taaw nga tudd ko jóg dem moom ak bëgg la mooy jiñ borom ci lu ne waaye nit ñi murid yaa nga toog di ma nekk man leen man noonu lu man di xew ci àdduna bi xasida ci laa dem te loolu jëralu ma yàq ko su ngeen toogee di lekk ceeb di naan café su ma dikkee rek ñu waxtaan des Sëriñ Tuubaa ko ñu dem kon loolu moo tax waxtaan wi du mën a gudd donc koy jéggalu nag ndax bu bu buñ sañoon wax loo xam ni xolub ñëpp danañ sedd waaye liñ bëgg daal li coow daal li muy bari bari mooy genn kàddu mooy ngalawaay nan góorgóorlu maa si jàpp Sëriñ Tuubaa man daal loolu la bëgg ndax koo macc ko ne xam lim saf barke xasida yi Sëriñ ku macc Sëñ Tuubaa ku ne xam lim saf xaw na ku ko maccagut waaye xol buy yëg Sëñ Tuubaa xol fexe ba sa xol bi di yëg Sëñ Tuubaa gise ci doxul dara wallaahi alxasim barke Sëñ Tuubaa donte am na lu jar weexalub sëriñ ni ko ñaanal mooy ñaanal ma sama xol bi di yëg Sëñ Tuubaa ku fexe ba yegg ci dimension bu da ko xam da nga xam ne yëg Sëñ Tuubaa moo dàq lu mooy moom nan fexe ba yëg Sëñ Tuubaa yëg gi nag yoon wi ci gën a gaaw la di wax muy xasida yi rek na jàng jàng te Sëñ Tuubaa rek tax te bañ cee jiñ bañ cee xasida moom bisimillahi barkeb borom Touba walhamdulilahi moom manees na ko wala sëñ diw ñaanal ma waaye jàng xasida di ci fas aajo aajo rek nga xool ba xam nga am courant li gars yi wut di ci kaw asamaan yow féetewool jàng xasida barke borom Touba addee borom Touba ren ba nga yëg ni yaa ngi yëg suñu am nga courant courant nag xam nga lu muy jariñ itte ju teew sëñ bi ab murit lu mu bon bon lu mu sàggan sàggan war naa fexe amub compte ci sëñ Tuubaa kont compte boo xam ne saa yoo bindee seeg mu walaabal ci nguuru ci sëñ Tuubaa murit bu ne war nga ko am la la koy may nag mooy jànkas di addee sëñ Tuubaa ndax tëdd ba xaaju guddi sa mbokkum taalibe woo la téléphone ni la bàyyi laat gay nga ne ko bàkk mu ne ma maa ngi Italie wala maa ngi Allemagne ba bagage yi ma yor dañ koy dañ koy tere te maa ngi nii jëm ñu di ma fuuyee te yàpp même moom yow laa ci yaakaar wird xaju fi lu ci des woo Sëñ Tuubaa mu wuyu la lan mooy tax boo wee Sëñ Tuubaa mu wuyu la ci yow lay doon murit bu woo Sëñ la seetal sa bopp du ci Sëriñ Tuubaa Sëñ Tuubaa addina bépp bu ñu ko woonoon ku ne mën naa gis Sëñ Tuubaa ci sawet addina bépp ba ci tubaab yi pour woo woon Sëñ Tuubaa ku ne mën naa gis am Sëñ du tee Sëñ Tuubaa di Sëñ Tuubaa waaye lay tax mu dinu wuyu ci nun lay doon ci nun nan fexe am dara ci Sëñ Tuubaa bu nu wooyee sëriñ bi sëriñ bi wujunu li may tëje mooy la sëñ moon way see waxoon rek sëñ Mor Mbay si daa xëy ni Philippe Senghor ku ne xam na ko Philippe Senghor doomi Senghor la lu mu defal yàlla dara sëñ Mor boo xëy ni dugal naa ko àjjana sëñ Mor Mbay si moo ne Philippe maa maa kenn waxuma ko mu di ma toppal ab kaamil bi ma njëkk jox sëriñ Abdul Ahad sëñ Mor di ko topp maa ngi toog mi ngi toog soxna mayum sëñ Touba bàyyi ko Touba yor oto bu ñuul dikk nuyu ko ni ko Senghor moo ma maa ngi toog Senghor sëñ Mor ne ko lu mu la doon doyee mu ne ko damaa woo ma dikk mun ma sama doom ji tudd Philippe laa bëgg nga dugalal ma ko àjjana te xam naa ne dug jullit waaye xam naa ne sëñ Tuubaa mën na leen te yéegal naa ko àjjana sa soxna may dikk wax ko sëñ Mor sëñ Mor ni ko dugal naa ko àjjana man si Mor Mbay Siise dal koy wax ni ko ci barkeb sëñ Tuubaa laa ko dugale àjjana keroog dañ nan jàng ñetti kaamil waaye buñ ci yàlla buñ ci tudd bi ndax dug jullit waaye nañ ci tudd sëñ Tuubaa mu dugal ko àjjana sëñ Mor nee ne ma noppee laa gis Philippe ñu génne ko ñu génne ko muy toq akum ndox sëñ bi lii ko amul dara sëñ Tuubaa ma ñëw ko te mag ñi mag ñi li leen mayoon lii du du jaamu yàlla gu bari du tax xam nga yéen ko mayoon bëgg Sëñ Tuubaa nan bëgg Sëñ Tuubaa nan jàpp Sëñ Tuubaa nan doyloo Sëñ Tuubaa loolu rek laa la yoon nanaa ko jàllale def ko soññu tey jéggalu la ca tege ma di ko wax mbokki taalibe bi yépp di ko sant Sëñ Tuubaa bëgg ñu sant le ma ko ci daa am ñaari kàddu benn bi sëriñ Abdul Ahad moo ma ko waxoon benn bi sëriñ Amsatu Mbàkke moo ma ko wax daaw jéeg gu ci ne nag maa ngi cay yëg ak yokk sëriñ Abdul Ahad dama bind ab kaamil yit ko ko mu xool ko ne yóbbu ko kër Sëriñ Tuubaa ma bindaatu kaamil ko xool ko yóbbulu ko kaamil yit ko ko mu tëyee ko xool ko am yegg mu teg ko ci kan ne ma Abdul Ahad ma ne ko bàcc ma mas jox Sëriñ Tuubaa daa bu tey bi sama kaamilu bopp la daal may ñaanal ba ma lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ma ñu tekk mu tekki wer yi téye samay ne maa ngi lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla na la yàlla yeggale foo bëgg a yegg te musal la ci ndox loolu suñu daata ma ko wax ci làmmiñam sama nopp ma di ci yëg boobu ba léegi may yëg ni maa ngi yëgg foo xam ne sama ittee ma yuma ko bi ci des muy suñu am satu daaw jéeg wala daaw ñu bari fekk na leen fa dama bind diiwaanub xasida yët ko ko diiwaanub xasida boo xam ne maa ko bind ci sama loxol bopp Nuuru Daarayni Mafaatihul Bichri Jaalibatu jës mooy muxaddimaat ba mu doonub diiwaan ma yët ko ko fa la fekk Ibra Géey ak ñu bari jox ko ko sëñ bi téye ko ne ma lii ko ko moom ma ne ko yow mu ne ah waaye sëñ bi lu rafet lii moom xanaa danga ma koo jox rek ngir ma xool ko ma ni ko dama la koo jox addee sëñ Tuubaa sëñ bi téye ko fóon ko yëkkati ko dal koy tegaat ci kawam dal di jàkkaarloog man ni ma ku yàlla bind mënta tee Sëñ Tuubaa fayda ku yàlla bind mënta tee yow Sëñ Tuubaa fayda suñ am sama ko wax ci wu làmmiñam ku yàlla bind mënta tee Sëñ fay fayda dugg ci biir génneeb manto jox ma ko ak i dàll aku kaala manto boobu ba fi mu toll su ma amee itte ju ma ñor ju mënta ñàkk damay sol mbubbum sëriñ Abdul Hakim ma ma joxoon ak mantob suñ am sa ba dem ca penku Tuubaa yi jumaay njaareem toog fa ñaan ko Sëñ Tuubaa balaa suuf mu faju saa yu ma amee itti ju mënta ñàkk bu ma sëriñ Abdul Hakim joxoon ak manto suñu antalaay sol dem ci jumaayi njëreem ci penk toog fa ñaan ko suñ Tuubaa balaa suba suñ Tuubaa naa ko jarabu naa ko ci seen daraja ñaan ñoom du ci laaj gay yi borom ñaari mbubb yi muy suñu Abdul ñaan xanaa mën na dara loolee nag na muy yàlla bind mënta tee suñ Tuubaa fay la fay ga laa leen di seereel li ci teew ren ku ne xam na ni daal kay bi 1913 la ko suñ Tuubaa du ju njëreem toog def nii loxoom moom Sëñ Tuubaa ca digg daala ya woolu Seex Rafaal mu dikk mu ne ko sengal ma barab bi Seex Rafaal seng barab bi ci sens sëñ bi tànn juróom-ñaari fukki mag biir juróom-ñaari fukki sëñ bi tànnaat ci ñaari fukki mag ak juróom daal cay boole jëmi boppam moom sëriñ bi ak Seex Moustapha ak Alaaji Fallu mag daal di wax ne saa borom soxla na dindi bi waaye dama rus daal ne sama barab bi nan fi saxal bis bu set juróomi kaamil saa yu ngeen xëyee te jàngu leen ko àddina tukki daal ne fu a nekk ceet nag jàmm ja lay boo ni ba ca tubaab ba ca tugal ba ci yàgg mu ne su ma doon ak njaboot ñiy ñiy jàng sama kaamil bi ñooy sama njaboot suñ bay sànni ko gannaaw ñooy sa njaboot boole maag ñoom may leen mu koy Babacar Sarr ñii yàlla laa leen di boole du may boole kenn yàlla rek laa leen di boole ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu dem naa ba suñ tubaa boole ma ci ma di may bokk ci ñay jàng kaamil ba xam ne bu doon lim ñaar fukk ak juróom suñ tubaa tànnoon ca laa bokk man Abdoulaat mii waaw ca laa bokk damay jàngi tiraanga foofee nag tiraanga fekk ma faren xam ne jàpp naa ne ci kàddu suñu am sagal a jóge dama faa toog di jàngub jukki waxtu takkusaan wala suba kaamilu suba bi am ko dikk nuyoo yëkkati benn billet màkka ni yéen waa daaree kaamil billet bi ma leen ko jox addiyee Sëñ Tuubaa yéen jàng kaamilu Sëñ bi muy ñaar fukki nit ak juróom-ñett mu jox leen benn billet màkk waa daaree kaamil yépp daje xool ni bàyyi laat gay bii la nu yónni mu demal waa daaree kaamil màkk dégg lool waa daara kaamil gépp daje xool ni bàyyi laat gay mii la ñuy yónni nga xam ne leen danaa ajali Sëñ Tuubaa ajug Sëñ Tuubaa laay aji man ajuguma ngir wër kaaba ga ak yooyu waaye lee man di waa ci baaxu xasida yi moom danaa toog ca kanamu yonente moom jàng jës bu mawaahibu mu xaddimaat illee ki yaa xëy li bet salaam ni Sëñ Tuubaa ni yonente bi lii moom Sëñ Tuubaa moo la ko wax sax mosoo dégg la wax lu mel nii moom mosoo ko sant Sëñ Tuubaa rek sant Sëñ Tuubaa rek sant Sëñ Tuubaa rek sant Sëñ Tuubaa rek sant Sëñ Tuubaa rek loolu di ñaanal ngeen ñaanal ma ci ma dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm te jàng fa ja Sumahib Muxaddimaat man moom jërul may wër Kaaba ga ak dara naa toog jàngi Sumahib Muxaddimaat rek ñibbisi ba Sëñ Tuubaa xam ne am na lu ko yonte bi wax lii daal laa bëgg man man wër Kaaba ga ak sànni yëpp baax na waaye naa jàng jàngi Sumahib Muxaddimaat rek ba yonte bi xam ne am na lu ko Sëñ Tuubaa wax kon maa ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp te di leen baalu àq te di leen baal tey ñaan ci barkeb Cheikh Ahmadul Xadim ci daraje mii sama bunt ñi fi teew ñëpp yàlla bu ci kenn manqué fi déwén kenn ku fi indi aada ku ne yàlla na faju ku fi am loo bëgg ku ne yàlla na yàlla na nga jot ku fi am lu la loo loo looy dàq lu lay dàq te ba gënul ci yow yàlla na suñu tubaab dox sa diggante ak moom képp ku fi indi ak ñàkk yàlla na nga am ba doyal maa ngi leen di yalwaanal suñu tubaab ci baaxu boppam yàlla na suñu tubaab dugg ci suñu xol yi buuf ci ferang laayu ci ba dara dootu ci xaj yàlla dara ci barke Seexul Xadiim darajay xasida yi Sëriñ Tuubaa yi noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di ñaan ci barke Alaaji Fallu Mbàkke mi nga xam ne lu ko waaye dëkk rafet ñoo seen ruu yëpp yëpp yëpp yéen ñii seen ruu yëpp yàlla na ko sëñ Fallu jël boole ko ak sama ruu bopp gii dencal na ko ba déwén kenn bañ a faatu ndax sëñ Mourou Bousso daan wax ku fi nara a faatu yàlla na ko def ci géej gi jën yi faatu marché yi bari jën ñuy lekk ceebu jën mu ñoom dund liggéeyale Sëñ Tuubaa ku ma woon loolu sax waaye man yéeg man sëñ Fallu dama koy tudd rek te yàlla tax waaye daa leen wax tuuti nag loolu nag kum neex déglu ko bu baax a baax maa ngi nii toog làqatuwuma nëbbatuwuma sëñ Fallu laa leen di kalaameel sëñ Fallu moom sëñ Tuubaa waxuma sëñ Abdu de mooy sama sëriñ waaye sëñ Fallu lay sax di kalaameel sëñ Fallu jumaay Tuubaa la tijji woon la sept di vendredi la sept juin di vendredi ma am taaw bu jigéen tuddee ko El Hadj Fallou muy juróom fukki ak juróom benn ci ren loolu mooy mooy mbir mi léegi nag li may wax niruma ko woon wax waaye yaay tax ma wax ko yaay tax ma wax ko may faral di wax ni nguur nag fal ak folli ku ko mënul mën ngaa démissionné bokkoo ci parti bi ci parti bi laa bokk te mënoo mayee passeport mënoo tax ñu gis président démissionné loo fiy def amul njariñ di man nag barkib sëñ Fallu sañ naa ci moom maa way sëñ Tuubaa ba xaaju guddi ma gis sëñ Fallu mu ne ku jara way laa barki Seexul Xaddiim way naa sëñ Fallu bañ war ma mooy mooy jiite yonente yi Alaaji Fallu mooy waliyullaahi te mooy ko te waa aras ñoom ñëpp ko Alaaji Fallu mooy jël yonente foofu way naa sëñ Fallu ba mu jaxasoog sëñ Tuubaa mu ne maay sëñ Tuubaa dama way sëñ Fallu toll nit kaamil léegi nag li may wax képp ko am itte la ñor képp ko am itte ju la ñor laa wax de joo mënta te bëgg sëñ Fallu fajal la ko billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa barkeb Seex Abdul Ahad barkeb Seex Abdul Ahad laa wax mi sama buntu ci yoonu suñu boo ma joxee ñaar téeméer yii ma def ko ci sama daaray alxuraan jamay tabax bu déwénee bu itte ji fajuwut ñëwal ci man ni ma fajuwut ku bëgg a tukkeeg lépp nag laa wax man bisimilaay waaw